yoon wi ñu traceel ku ci jaar lu baax rekk ngay am euh, Serigne Touba nag liggéeyam dafa dépassé murit moom askan nit ku ñuul ak jullit yëpp la liggéeyal waxam sax yemalewu ko muridu laa li muy tekki ñëpp xam nañ ko képp koo xam ni rek euh, da nga jokk ci Seyduna Muhammad ci nga bokk euh, ku mel noonu nag ak li mu bind bàyyi ko fi nga xam ni lépp njariñ la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 ñu ni ki Pape Diop mooy taalibe bi